la de. c'est-à-dire que li ñuy gam-gamle assemblée yëpp suppléant la. xamuñu leen woon sax. ñun xamuñu leen woon. donc ñu ñu ñu fal ko. muy fal ay maire boo xam ne leer na ko ne dafay fëgg dënam ne man la. ba ñuy fal maire yi man maa doon présidente commission. Euh, arbitrage ak médiation maa doon désigné maire yeew yi yëpp maa désigné. mais mu ni mu ni kii la mairie bi ñëpp doon xalaat muy dakaar mu ni ma diw la ñu ñëw ñu déngi déngi mu ni ma su ngeen ko deful ma jël sama récépissé jox ko mi ñu fal ko. géejawaay mën leen bii du ñu menacé géejawaay Ahmed dafa ñëw ni ma maire Ousmane na ngi hésité te bu hésité du baax de <laughs> ma ni ko du hésité. <laughs> du hésité moom xam nga dafa neex du hésité léeg-léeg mu toog ba mu yàgg meer wax leen bëgg jàppoon naa ci de ma ne ko jàppoon nga ci donc vraiment fépp noonu la demee donc sant yàlla la loolu la ko yàlla defal ba tey jii bu nee pat nit ñi ne la mutisme de Ousmane Sonko. bu waxee ñu ne la Ousmane Sonko wax mooy def l'actualité. mais est que euh, euh, docteur Dogma. Mhm. le fait kenn weddiwu ko moom ci mbirum institution le mm-hmm. président la république est-ce que jiitalul trop mm-hmm. le premier ministre ou son ami Ousmane Sonko ba loolu war mën a indi gàllankoor ci doxalinu état parce que li tax may laaj laaj boobu gis naa ku mel ni Abdou Mbow bind wax ko. Euh, bind oh ci mel <laughs> oh non non c'est vrai je veux pas je <laughs> oh veux pas bëgguma bëgguma personnaliser. mais yow yow mais quand même nga toll ci xam-xam <laughs> am na révérence yoo xam ne bàyyi sa bopp. non damay laaj xam nga laaj laa ne. damaa bëgg am ñoo xam ne xam nga man waxuma sama mhm. am na xam ne suñu waxee yow fëggal sa dënn ne leen wane sama ay dëngo kii maa ëpp mérite. maa man lañ war a gën a non non ma laaj loolu. je l'ai dit ici samedi. j'ai magnifié le euh, euh, di discours wala waxtaanu président na ni j'ai été séduit je pense que. Euh, dañ ko partager un peu partout ba ma xaw cee ruus sax mm. presque plus de cent mille personnes di que di ko partager parce que wax naa wax bu mel noonu. Mm. Ah, mais loolu de yàlla lu ko dimbalee lu dëggu la ci man moo tax mu wax ko. Mm, mais ci biir wax bi nee naa leen mais bu mu dëgg la am na sañ-sañ parce que bëgg na ko ba mu àgg ci lool ñu bëggante nuñ ko mën a waxee. Mm. mais bu mu am empiété ci président bi mu doon le temps que ñuy renforcer peut-être les pouvoirs du premier ministre parce que loolu constitution bi moo ko néewal ay dooleem moom premier ministre la preuve boo xoolee. Euh, le décret de répartition des services de ma exemple boo jël wax ma ni ma Ousmane dafa empiété ci prérogative bu premier ministre non non j'ai dit j'ai mm. wax ma ne def na ko mm-hmm. dama ne mm-hmm. pour parce que nit ñi ñooy ñooy seetlu da gis kuy seetlu peut-être ci seetlu bañ a sori nga ne on voit plus Sonko que Diomaye mm-hmm. bañ ko waxee mën leen c'est parce que Diomaye naa rien à dire il a à travailler Sonko il a deux casquettes tey mooy casquette politique di parce que casquette homme d'État en tant que premier ministre ndax moment boo xam ne day jiital politique bi parce que réewum Sénégal la ñu ne boo bàyyee Aïda Mbodj rek wax euh, day compliqué foog nga xuloog moom ci mbirum politique pour mm. wan ko ni mm. attention c'est pas parce que dénk nañ ma lenge mm. que léegi xaru yar laa fa ma nekkoon maa ngi fa ba léegi loolu la Sonko mënee et nit ko tey laa bu dee populisme moo tax ñu falu mais populisme mboom dina tax bu ñu defar la ñu war a defar. Ah. parce que mooy se mooy nature am mën leen c' est l' alpha et l' oméga c' est yin et le moom ak jomaay jomaay moo gën a posé. mais euh, attention xadaru Sonko bu mu leen nax ci jomaay. sur le plan personnel nit la koo xamee ni maa ngi koy wax sànq ci ko tooñee c' est pas un mot bu bu ñaaw mm-hmm. mii kër la. Euh, day toog nii nga yaakaar ni euh, amul fit wala yooyu mais Sonko laa di nee na leen mais attention yenn saa ma taxaw taxaw ne ni lii dama koy def mu ne ko dang doo ko def. ñu xuloo ci mu ne ko doo ko def. ko mm. te par force doo ko def. ça veut dire am na benn wekk bu am seen diggante mais li tax ma laaj loolu par rapport ak question bu jógee ci keneen bokk pour ne pas mm-hmm. mooy ci perception bi ay nit am. je ne pas tout le mais dans la perception mm. ñenn yi dañoo jàpp ni bëgg ba bëgg trop. Ousmane Sonko est-ce que tey waruñu woon sax ne ko léegi président wala euh, Ousmane Sonko premier ministre kaay chaise u palais baa ngi nii donc il lui a un mot bu nii ñu déggee tubaab dafa ne neewuma ko na lorgner mais na ko xool na lorgner le fauteuil du président mm-hmm. mais na ko xool mm-hmm. c'est deux mots différents regarder le fauteuil et lorgner le fauteuil celui qui lorgne du la ko won nii ci kanam day sàcc di xool mm-hmm. mais celui qui regarde day toog di ko xool di ko sàmm lay doon donc mhm. dans son propos mooy sàmmal président bi ma doon mhm. fauteuil bi ma doon mhm. yow yaa may aar parce que yaay souvent on le dit fusible bi le premier ministre est souvent le fusible maanaam bu bonee dañ naan du man de jox naa ko sama euh, sama politique dem na assemblée def euh, déclaration politique générale mais moom en tant que premier ministre doxalul souvent boo xoolee ci Wade ci ci ci souvent on fait sauter ce verrou wala ce euh, ce ce fusible là qu'est le premier ministre euh, est-ce que ce sera le cas par rapport ak premier ministre bi je ne le pense pas mais li tax ma laaj laaj ba mais est-ce que le premier ministre n'est pas trop trop devant par rapport au président.